Euh, sant yàlla rek ndax comme li ma la wax rek gis nga liggéey moom euh, boo koy def am si taxawaay ak Pastef comme ni ko sëñ bi bëggee toujours mooy toujours na jëm si kanam moom loolu la ñuy wax donc comme liggéey bi dafa jëm si kanam moom mi nga xam ne moom moo sax moom si boppam moo jiite loolu noonu ndax daaw soo seetloo euh, fi ñu yemoon ko yi nekkoon daaw wute naag loolu ak ko yii nii wax dëgg yàlla kon xam nga ni am na amélioration bu baax a baax te loolu yëpp sëñ bee ko sëñ bee si teg tànkam taxaw si euh, vraiment ba loolu am donc loolu sant yàlla donc loolu ak avancement wu liggéey la ñu gis ni aussi yokkute am na si. ndax euh, gis nañu tey lu mu taw taw taw taw taw ba nit ñi ñëw nañu ñëw organiser wu toog ñun tamit ñu ñëw équipe yëpp ñëw malgré taw bi malgré lépp ñu ñëw pour euh, ñaan sunu borom sunu ya mu may ñu euh, vraiment ñu am satisfaction si bésu tay bi ak vraiment réussite incha allah. waaw comme euh, li may wax rek macha allah parce que euh, depuis hier ñëw naa fi di xool euh, liggéey bi fan lañ toll si ko yeeg yooyu waaye gis naa ni daal mbokku taalibe yi ndax tey sama pap bi nga xam ni moo ma jox mbir yi muy màggat Diop mu bokk si taalibe yi moom it nekk yor commission bi nga xam ni tamit am na solo bokk si commission bi gis naa ni depuis démb ñëw naa fi di xool liggéey yi. mais taxawaay bu rafet laa gis si taambok taalibe yi def ko euh, wax dëgg yàlla daw fii indi fexe daal ba tey ñun ñu ñëw taxaw fii si jëmm ji jëmmal daal wax dëgg yàlla place bi ba nga xam ni ku fi taxaw rek gis di nga xam ne sa dina sedd na si si si li euh, taalibe yi def euh, beneen bi aussi si côté équipe bi aussi macha allah ndax sama équipe bi tamit ñoom it Euh, ñoom fi sax njëkk ñu teel ñëw ñoom it euh, taxaw euh, organiser wu malaat yi même chose ku si nekk daal jël say matuwaay ba mu mat sëkk sëkk sëkk sëkk ndax ñoom it du ma ni du ma ni du ma ni ren rek la même daaw noonu la woon ñoom sax ñoo ni ko gën a bëgg. donc ñëw nañu en nombre euh, indaale seen euh, pas Pastef ak seen pas-pas si si kii bi jàppa jàpp jàppale ñu sécurité bi également macha allah donc daal euh, awma lu ma wax si côté organisation bi sant yàlla daal di ñaan yàlla mu jëm si kanam patients yi macha allah parce que li tax ma wax ko daaw dañuy ñëwoon. Euh, nekk nombre boo xam ni macha allah ren ñu gën ko ñu gën a mu gën a ful mu gën a euh, nombre bi gën a yokku loolu nag man vraiment dafa ma dafa ma jaaxal malgré taw bi am ni tey maintenant li may faral di gis ci consultation médicale yi en général euh, mooy yenn consultation médicale yi day xaw a folklorique mais qualité bi ak yooyu du génn mais bii. dañ ci gis plus de qualité que de folklore plus de qualité que de politique plus de qualité que de vraiment euh, acte de présence wala yooyu malade seen bopp dafa mel na ñoom dañ mel ne ku jóge euh, seen dëkk ñëw directement euh, seet ci hôpital ndax dëgg la hôpital moo leen fekk si ñoom gëm nañu loolu moo tax vraiment ku si nekk boo ko xoolee euh, ñi ngeeg ay pathologie yu chronique yoo xam ni tey ñemewuñu woon xëy na dem hôpital wala russoon nañ dem hôpital di wax seen bopp wala euh, am nañu euh, benn genre kii si hôpital ba nga xam ne xëy na accueil yeeg yooyu noonu du leen neex ak aussi surtout nag ce qui est plus important mooy seen am-am seen niveau social ndax fi ñu jógee dafa dafa sore fu nekk la ñuy jógee ñëw si gàmb gàmb bi fu nekk la jóge jógee looloo tax sëñ bi si boppam loolu mu xam noonu moo gën a tax moom it mu mu farlu si si constatation wu médical bi nii ndax sëñ bi daf ma wan ni man santé bi man mii nii sax di nekk médecin moom daf ma wan ni moom moo gën a bëgg santé bi ndax euh, côté boobu dañ si waxtaan xam naa xam naa si lu bare looloo tax. Euh, Euh, vraiment ma kontaan si constatation euh, médical bi nii gis ni constatation médicale bi am na utilité boo xam ne macha allah wute naag constation médicale yu bëree bëri bëri bëri bëri ñoom ñoo xam nombre de malaat rek moo leen soxal la ñu am tant de malades cent malades mille malades alors que fii même si on avait deux malades euh, da ngay gis ni qualité bi mi ngi fii koo xam day ñëw indi pathologie boo xam mu su ko yóbbu fenn nga xool ko xam ne lii nii pathologie la boo xam ne boo ko woon ak moom tey yàlla tere nga jël dimbali orienté faj yóbbu boole ko ak spécialiste directement si sa tour ñun loolu rek la ñuy la ñuy sagoo ñoom it loolu gis nañ ni utilité bi moo tax ren ñu def en masse ñëw uniquement am ñoo xam ñëw ñu sax pour gàmm si way dañuy ñëw uniquement pour faju si parce que dañ jàpp ni tey fii hôpital la loolu daal vraiment gis naa ko si te loolu lu ma lu ma lu neex la si en plus euh, presque on a presque vie plus de cinquantaine de malaat actuellement te pareeguñu te ñaanoon yàlla euh, gën a yokk suñu loxo parce que garab yi des na yëpp a ngi fi donc incha allah ñu ngi ñun ak ñoom ba si kanam kanam incha allah pour euh, gën a def li nga xam moom lañu sëñ bi sant si ñoom ndax sëñ bi dafa bëgg population bi dafa bëgg. nit ñi seen wér-gi-yaram daf leen soxal dafa soxal sëñ bi te loolu moo tax moom mu mu nekk si loolu tax tamit mu mu jox ñu mbir yi pour que ñun ñu doxalee ko noonu ba tax mu jaral ko lépp mu def ko si comme moyen. sensibilisation moom <laughs> suñ ko waxee euh, déjà euh, suñ xaari moo ko njëkkee ndax ku ku ku def lii rek cest à ko kooku xam na lan mooy sensibilisation xam na lan mooy sante waaw man loolu dafa ma neex si moom. Euh, moo tax mu nekk sama xarit quand même euh, man boo bëggee sante rek bëgg du jëm si dama lay ñeme donc sëñ bi loolu ma booleeg moom au fait maintenant euh, sensibilisation bi njëkk mooy dara dàqul ñun la hôpital moo la fekk si loolu day fay dafay jouer si sensibilisation maanaam day yombal day yombal nit ki mu mën a jóge fa mu dëkk am am sañ-sañ am aussi euh, mu bañ a ragal ñëw directement se fekk fi ay docteur ñu wàcc seen bopp ba méngoog ñoom mën leen faj ndax tey hôpital ñëpp xam na ni yenn euh, yenn ñem na ñoo xam ni ñemewuñu hôpital soo déggee hôpital rek seen fiti day dem te pourtant hôpital euh, warul demee noonu donc yu mel nii nag day tax dañ lay ñemeloo hôpital day tax yow à chaque fois soo waree joo jógee rek di dem hôpital dina am au moins un médecin généraliste wala un spécialiste wax moo la orienté vers quelque chose donc loolu c'est très important donc dañuy ñaan daal sunu mbokk taalibe yi ak sunu mbokk euh, la population général en particulier ñuy gën a farlu ci seen santé wér yaram di ñëw di di consulter wu régulièrement nit ku amee jabet am tension waroo. toog au moins une semaine te doo xool sa suukar wala doo xool sa tension loolu baaxul nit mënoo lekk di naan chaque jour te doo xool sa dara loolu dama jàpp ni loolu posone sa bopp la ndax lekk boobu ngay lekk nekkatul alimentation mais poison la si yow ndax boo doon lekk même bu dee benn laxasu gerte caaf par jour war nga xool sa tension ak sa jabet fu mu toll soo ko deful lu considéré loolu comme poison man loolu lay faral di wax moo tax euh, ma ni Euh, sensibilisation bi dafa war a njëkkee nekk loo xam ni euh, population bi si boppam ñoom ñooy xam seen matuwaay bopp xam li ñuy lekk xam niñ koy lekkee xam heure bañ koy lekkee te aussi respecté lu ñu gis xam ne gis nañ ko seen yaram lu mu tuuti tuuti ñu dem def consultation xool poste santé bu la gën a jege centre santé bu la gën a jege nga dem xool si sa yaram euh, loolu tamit def sa am solo te dina ñu dimbali ñun ba nga xam ni euh, vraiment balaay kaay di affaire yi di gën a graaw dina fekk lu bëri euh, en amont gars yi daañ ko mën a gérer incha allah. gërëm di sant sëñ Xaadim di remercier bu baax a baax si initiative bii nga xam def na ko permettre ñun en tant que praticien en tant que médecin ñun ñu ñu ñu mën a ñu mën a exprimer wu. à travers cette population-là, la nga xam vraiment c'est une population tellement euh, vulnérable, je peux dire, parce que cas social, euh, vraiment c'est un niveau social tellement bas, mom lañ fi fekk di gërëm aussi sama ki nga xam ne mooy sama papa nga xam ni moom moo moom moo waral lii yëpp moo organiser lii moo ko sabab moo ko initier si si si si kiiwu sëñ si ndigalu sëñ Xaadim muy sëñ sam papa euh, Maguette Diop ànd seeg euh, soxnaam sama tante bi ñuy wax Nabu euh, sëy Nabu Saw di ko gërëm bu baax di ko ñaanal également di leen ñaanal ñoom ñaan ñëpp wax dëgg yàlla ndax lépp ñoom la ñoo togg ba mu ñor yàkkal ma ko jox ma ma téye man duma si dara di gërëm tamit samay collègues yi docteur Diouf samay infirmier samay équipe yëpp bi mu àndal di leen gërëm di leen sant